ñu daal koy jël euh, wax ak ki nga xamante ne moom moo di euh, Diégui Diop euh, ñu daal di rek jege. jox leen ma booy dimbali ma gaaw balaa muy fay. Daouda Daouda. Fatma gënoon Fatma Diallo. une minute. une minute laay def. non madame madame. une minute. non di nga di nga yàgg na. non non parce que bëri na affaire en cours la mënu ma si wax. naam. sonn ngeen de. yéen sonn ngeen de. ana ñoom dem nañ te dafa doon taw. aywa boog une minute ubbi bopp. <laughs>

waaw parce que ay cuure ngeen bàyyi gaawal waay arum <laughs> bopp ñëwal eh sek sek toj nga dëkk bi <laughs> ah waay gaaw leen dama sonn et j'ai un dossier à non presse moom garaawul sonn mooy seen liggéey <laughs> c'est bon c'est bon c'est bon alhamdulilah haal Euh, donc c'est un réel plaisir pour moi d'être ici en face des Sénégalais. D'abord dire merci à l'ensemble des Sénégalais, dire merci à l'Alliance pour la République, dire merci à Benno Bokk Yakaar, dire merci à son excellence monsieur le président Macky Sall. Je renouvelle, je encore mon engagement à défendre les institutions de mon pays. Je suis une républicaine. Je crois à la justice de mon pays, je crois à la gendarmerie, aux forces de défense et de sécurité de mon pays et je crois à mon leader. j'ai été auditionnée de 11h à maintenant. C'est un réel plaisir pour moi parce que je n'ai jamais eu à refuser de faire une passation de service. Raison pour laquelle on est là. Donc la, la, la procédure va construire son cours. Et juste pour vous dire, non à l'intimidation. Et je demeure convaincue que je suis une adepte ou bien je suis euh, euh, quelqu'un qui croit à la République du Sénégal. un adepte donc autant pour moi loolu na ndax nasaraan d' accord non madame nga baal ñu mais da nga sa dernier poste bi nga def nii dañ ci war a tudd intimidation. Mhm. ça ne passera pas. non alors da nga jàpp ni yëf dafa rax loolu. bu raxul loolu ana nga am poste. no toi aussi une question rek doy na. comme que dossier bi pareegul bàyyi ma dem. donc euh, qu'est-ce que je disais donc je dis liggéey la démission convocation nii dala la demee amul leneen. musuma wax ni duma def passation damaa xëy ñu yónnee ma huissier laaj ma sama PV de passation ma signé li ma war a signé def li ma war def mu indi ma ba fii mais dama bëgg leeral sénégalais yëpp dama mës a défendre les institutions de mon pays dama mës a défendre les forces de défense et de sécurité de mon pays dama mës a gëm la démocratie et l'état de droit donc du man maay bañ lépp loo xamante ni dafa tolloo ak loolu waaye nag képp koo xam ne yaakaar nga ni mën nga ma xoxatal mbaa nga tiital ma ba tax ma bàyyi ki ma wóolu man muy son excellence monsieur le président Macky Sall ah ndax nga sa bopp nag ndax nag Macky Sall laa àndal. mais man lan lañ le dossier suit son cours. waaw ki ñu doon xaar nag di madame Diégui Diop. ñëw na naam bëggul wax ci li nga xam ne moom mooy dossier bi ndax la mu wax moom mooy.